sa ñi demoon ci dialogue bi bari na ci ñu jël parole du ñoom ñoo yor en main le jeu politique. mais justement. la nature a horreur du vide. justement. yéen boo leen gëmee réew mi waroon ngeen dem ci dialogue ba la ngeen am comme revendication ngeen teg ko ci table bi d'autant plus que Macky Sall a di qu'il n'y a pas de sujet tabou. d'accord troisième mandat sax dinañ ko fa waxtaane. pourquoi yow nga refuser. dem ci dialogue. troisième mandat dañ ko fay waxtaane waaw te naan la booy wax ak man da ngay wax ak man ci njekk <laughs> non je lui par force. non loolu loolu après la. oui mais yow ba ñu annoncé dialogue ba. oui da nga ne doo dem. waaw dialogue ba commencé. doo ma laaj lu nga ne ce sont des ma laaj lu tax ñoom ñoo toog pour waxtaan. doo ma laaj lu tax ëllëgu. doo laaj lu tax euh, lu tax dew ma ci dialogue Macky Sall. lu tax nanguwuloo dem ci dialogue wóoluwuma ko. mais loo ko ci naka. sañ naa ko wóoluwuma ko parce que dama gis ñu mu dialogueel ñëpp te jurul dara. gis ñu mu dialogueel rocc leen dugal leen ci boppam. mais mun leen ko woon mettre à l'épreuve des faits. magum jëmm day ni moom. waaw moom président de la yow yow may mun a Macky Sall moo la gën a moo la gën a xam lu baax ci réew mi bu fekkee ne lu war a defar réew mi la Macky Sall mi ñu fal pendant douze ans mu nekk ci bopp réew mi moo la gën a xam yow lu baax ci réew mi. mais mën na am dialogue bi c'est une pour faire ko oui mais pour que les acteurs se retrouvent pour, pour et, se, et, se, et, mhm. des règles parce que am ngeen aujourd'hui c'est quoi les règles du jeu la question du parrainage d'accord boo leen ko waxtaanee wu xam nga xam nga xam nga may mun a la question du ah, parrainage may mun a la question des libertés publiques mooy la question des détenus mhm. la question des inéligibilités mm -hmm. la modification de l'article 56 L29 L30 yooyu yëpp ay question la ay point la yoo xam ne mënoon ngeen dem teg ko ci table bi ah, pour vous assurer euh, nu mu tudd une bonne tenue ah, de l'élection présidentielle léegi léegi léegi yow loolu mooy sa xalaat waa ah. waa léegi yow nangul ma man ne xalaateew ma noonu xam nga loolu aussi mooy démocratie. non dama la koy nangu. waa waaw d'accord mais je m'étonne que. ngeen ne mbir mi doxul. ba pare mu ne leen kaa leen ñu waxtaan ngeen bañ. waaw léegi lan ngay waxtaanee ci. la ngay waxtaanee moom mooy xool timing bu ko neex. ak solution yi nga xam ne def na ko clé en mais ba pare moom lay ñëw tegal la ci table keroog seen lancement bi wax ma lu fa juddoo lu nit mun a jàpp ay màggat yu xobidaas ànd ak sengoor ndékkeeg Senghor añ ak Abdoulaye Wade Abdou Diouf njogonaloo ak Ablaye Wade reer reer ak Macky la des gens yoo xam ne xamuñu lu kod wayafal di jar ay nit ñoo xam ne xamuñu lu lu lu facture mais parce que seen cër may ma rek may ma rek ma yeggale yow tamit xam nga aussi munoo ne da ngay waxtaane ëllëgu réew mi dem fekki ñoo xam ne ils ont leur avenir dans le passé nga ñëw ne leen da ngeen di ñëw toog ñëw leen ma waxtaan ak yéen mbirum réew mi Macky Sall loolu ñoru ko dóor marto la xam nga loolu paa yi la koy def mais ñun suñu classe gi juddu année 70 ñun kenn duñu dóor marto parce que ñun jàpp nañ ni réew mi réew ay loi règle ak règlement moo koy doxal. mais mënu leen dóor marto moo tax mënu leen dóor marto non la preuve dóor marto gi tey. door marto gi tey moo indi gëmmal door dóor dóor marto gi moo indi président xoolal te nangam sàngam la ñu fa wax yépp wax ma lan moo ci luy defar réew. nga tey lu dul lu Bamba Dièye mi ma jàpp ne wax na fa wax ju nit mën a dégg mais maintenant wax nañu ko mais c'est quoi. la solution xam nga xam nga tey. may ma parenage parrainage Macky Sall moo ko fi institué Macky Sall moo moo moo imposé le parrainage et yow ak sa moroom xam ngeen ne parrainage c'est un filtre. bu Macky Sall jël ku ko neex mooy jàll ku ko neexul di jàll